bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidi al anbiyaai wal mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajmain alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina astafa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yu tedd yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan yàlla yàlla na yàlla nangul ñu lépp loo xam ni jàmm yàlla bu ñu def ci koor bi la bu bu ñu ko nanguloo yàlla na ko ful def ko muy yiw ci àdduna te yiw ci àllaaxira xanaa rekk ngir fàttali mbokk yi weeru koor bokk na ci ay ngëneelam weer la boo xam ni borom bi subhaanahu wa taala ci nangu ñaan jaaduma na rek kenn ku nekk ci ñun xam yan condition la nit ki war a ñaanee digganteem ak boromam am na ay teggin yoo xamee ni kii ñaan moom la warloo ci digganteem ak boromam ginnaaw ba nga xamee ni am na bunt boo xam ni fa la war a jaar waxtu woo may ñaan ak boromam subhanahu wa boo ñaan sa borom am na noo war a mel am na noo war a li si njëkk rekk mooy nga teewal waxtu wa ngay ñaan yéene boo xam ni yéene bu rafet la yéene bu rafet <clears throat> ulamaa yi tënku nañu ko lépp loo xam ni danga koy ñaanal sa bopp moom nga war a ñaanal képp ku dul yow ginnaaw ba nga xamee ni yéene ji am na yow miy ñaan nga nekk koo xam ni waxtu wa ngay ñaan waxtu wu sell nga sa diggante ak sa boroom bi maanaa fekk nga nekk koo xam ni ko am njàpp nga fekk nga nekk koo xam ni mbooleem loo xam ni sobe la boo xam ni dëgganul nit ki di ci diyaale ak boroomam mucc nga ci bu ñetteel ba mooy nga jaare ko si buntab jaamu yàlla bi maanaa nga julli ba mu neex la waxtu wu mënti doon walla nga def say nawaafil ba pare def say azkaar tudd yàlla bi nga man ba pare door tàllal sa loxo door dal di ñaan sa borom subhanahu wa taala ndax ulama yi dañu ne bi yàlla di wax ni dinaa wuyu wooteeb aji woote ji ida daani bu fekkee ni woona ma ñu ne nag ida nag mooy bu fekkee ni charte yi nga xame ni moom la war a jëfandikoo mat na charta yi nag mooy ci tënk li nga xamee ni moom laa wax léegi weer wi weeru nangu ñaan la sikki nekku ci waxtu wu mënti doon ginnaaw jaamu yàlla bu nekk boo teewalee yéen bu rafet sell sa diggante ak sa boroom muy laab nga jaaree ko ci buntëb ibaada jaamu yàlla maanaam nga julli waxtu juróom bu mënti doon ba pare tàllal sa loxo ñaan sa borom wala nga def say nawaafil ba pare tudd yàlla moo xam ci tur bu mu mënti doon tam muy tur boo xam ne alquran xam na ko boo paree nga door a ñaan sa borom euh, sikki nekkul ci ne incha allahu rabbi euh, képp koo xam ne taqoo na loolu digganteem ak boromam incha allahu rabbi borom bi dina ko nangul li nga xam ne mooy ñaanam. di fàttali mbokk yi rek bokk na ci ay ngëneelu koor weer la boo xam ne weeru nangu ñaan la kon kenn ku nekk ci ñun lépp loo xam ne ñaan na ko muy lu jëm ci boppam ak ci askanam ak ci njabootam. yàlla na yàlla nangul ñu ko euh, di fàttali rek incha allah tey di fukkeelu guddi ak ñaar ci naafila bi nga xamee ni ñu bari ci fuqaha yi dëppoo nañ ci ku ko mën fukki rakkaa lay doon rakkaa bu nekk fatiha benn yoon ngay jàng boo paree nga teg ci juróom benn qul huwa allahu ahad tey di douzième jour incha allah ci ku ko mën naafila bi fukki rakkaa lay doon raka bu nekk fatiha benn yoon ngay jàng boo paree ci fatiha bi nga def qul huwallahu ahadun juróom benn six fois ñu ngi ñaan yàlla mu nangu mu te nangul leen seen koor ak suñu jaamu yàlla yëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa